ma àdduna du nit du nit du dara lu ma ko jaral principe yooyu ma amoon ba tey ji yooyu laa am donc kooku noonu tey duma ko gis mu def loo xam ne ba tey gënalu ma def loo xam ne su ma ci mënoon dara du ko def def loo xam ne tey su ma laajoon du ko def muy transhumé muy jóge ci parti beneen ñëw ba gën ñëw ci beneen parti ci moment bi nga xam ne nag bu ko defoon avant présidentielle yi ñu ne waaw wala mu def ko mais a bii nga xam ne dañu ne dañuy dem ci reddition des comptes dem ci ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy waa kër Macky Sall yi yoroon réew mi ku ci nekk ñu càmbar rapport yi génn ñu ne déetewaay nga nekkoon koo xam ne jege ñaale mag sàll nga dàqoon ko défendre tey nga ba ko fa ñukk ñëw ànd ak koo xam ne moom a sàll nii la nga yàgg a gis ñun askanu Sénégal ñu yàgg xeex transhumant yàgg koo wax ne gënaluñu ci place publique bi gënaluñu ci biir politique bi lu salte la lu ñaaw la yow nga am fitu ñëw du ko def kon kooku principe yi ñu amoon ci yow daaw ak daaw jéeg dara du ko dindi parce que ba léegi nii nekkoo ñun ci li ñu neex war a nekkoo ñun ci li nga xam ne tey jii mooy dala suñu xel kon tey moom Aji Bergane Kanouté lan la exactement moment bii mu ñëwee nii ne day allié si ak Pastef ne day jàppale Pastef ci élection législative yi ne fi ñukk Macky Sall mag Sall nekk tête de mu ne ko fi ñukk lan la exactement moo tax ma am benn question bu may poser est-ce que Macky Sall génn na loxoom ba tey jii ci ci ci ci ci doxinalu Ousmane Sonko est-ce que Macky mi bëggoon a tas Pastef wala mi tasoon Pastef parti bu Pastef est-ce que génn na loxoom ak xelam ba tey jii ci tas parti bu Pastef est-ce que mi jëloon Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mii tey ak seeni ñoñ ak ñu bari bari bari ci seeni parti ak seeni jegeñaale ki leen jëloon tëj leen ci kaso bi ngir bañ ñu existeeti est-ce que kooku ba léegi génn na loxoom ci biir parti bi ak doxalinu parti bi est-ce que nekkul ba tey di gor seen yeel est-ce que Macky Sall ba léegi nii nekkul di manipuler est-ce que Macky Sall toogul ci coinam toog ci ruqam xam na ne mënalatul dara Ousmane Sonko mu ne naa ko yónnee ay missile ci suuf mu ne naa gor yeelam ci suuf naa gor parti bu Pastef ci suuf donte ne nag mën naa am du ko mën mais mu yónnee ay nitam pour ñu am porox ndoll pour ñu buruxlu bu leen fàttali aji bergaan kanute nee naa leen ko jegewoon Macky Sall loolu kenn mënu ko weddi ay Doura Baldé mii ngeen di gis ay Mame Boye Diao ñii man ñoom ñëpp bu leen fàttali ci Macky Sall lañ nekkoon kon est-ce que question bii may poser duñu duñu continuer di poser la question que joue Macky Sall su lii lépp lépp jàllee lan la Macky Sall di jouer exactement est-ce que Macky Sall mi toogoon pour déstabiliser Pastef déstabiliser Ousmane Sonko ak waa këram daan rey ci waa kër Ousmane Sonko yi mu ko daan jaral jël bakkan est-ce que Macky Sall moomu ba tey jii bàyyi na li tax ñuy gis ay ñoñam di ñëw di allié si ak Pastef ñu ne déetee waay ñuy manipuler ci kaw allié googu rek ñu wax ñoom ñuy ñuy wër di manipuler parce que manipulation mënta weesu lii génne ay photo ci moment bii photo yoo xam ne yàgg na ñu ne déetee waay nga boole ko ak information bi comme quoi dangaa transhumé biir Pastef est-ce que loolu du décourager ñenn ñi est-ce que loolu defuñu ko juste pour wane wane ne non ñoom ñoo bañoon transhumance kon ñoom ñoom ñoo weddi seen bopp est-ce que du 6 ay 9 la woon ca Macky Sall moom moo nekk ci Ousmane Sonko ak waa këram ay question lay poser parce que ñun kenn moomuñu suñu xel lañ yor di xalaat dañuy analyser est-ce que du ay plan yu ñu teg est-ce que amu ci loo xam ne ñoom ñoo ko def pour pour réeral askanu Sénégal pour ne leen Ousmane Sonko ak Macky Sall kiif kiif ñoom ñoo yem. ci jamono ji nga xam ne nii na Ousmane Sonko amul benn benn droit ne déedéet yow allié bi doo ñëw ci man amu ko amul droit toog ne déedéet non non politique la lii laa wan askanu Sénégal yow moomu fi nga fàqee demal toog fa bul ñëw Ousmane Sonko du ko wax de te surtout nag ci moment bii ñu toll nee naa leen stratégie politique bi mu bi mu yor mën na nekk sax da leen di dribbler dafa pare pour dribbler leen dafa pare pour seen xar kanam mu won ko askanu Sénégal boo bu paree ci ñoom nag utiliser leen ba ñu mel ni morso fabeerukaay mu boole leen ci benn ndab tëj ñu jariñ dara politiquement su paree mu ànd ak ñi mu war a àndal doxal liggéeyam te li may wax aussi lu mën a nekk la posé naa question ci mag sàll est-ce que du moo nekk ci ginnaaw lii lépp di manipuler c'est des questions yu ma posé li tax ay ay ay nitam di fàqee ca àll ba di ñëw di infiltrer mais aussi est-ce que du dañoo bëgg a gàkkal Ousmane Sonko ak parti bu Pastef moo tax ñu bëgg a dendale transhumance ak ñoom ñoom lañ doon def ñu ne looloo amaat ba tey mais est-ce que du indi xel ñaar ci ñenn ñi ci waa Pastef est-ce que mënul indi xel ñaar ci ñenn ñi. ci la population sénégalaise te ci jamono jooju Ousmane Sonko nee naa leen en matière de politique mënul ne déedéet def conférence de presse ne damaa tëj samay buntu mënu ko mais li mu mënoon yëpp wax na ko képp ku ñàkk jom nag ba ñëw ci moom amoo jom mais moom li mu waxoon yëpp moom moom li mu mënoon yëpp wax na ko depuis 2019 lay seetaan ay waxam mille depuis 2019 mu naan ku fi ñëw. di doomu Sénégal nga ñëw ne damaa bëgg ànd ak yow liggéey du ma la dàq damay ànd ak yow liggéey woo la nag liggéey ci jom ful fulla ci respecté askan wi ci ku ci nekk nga jox ko la mu moom te li ñëpp bokk nga teg ko fa de loolu depuis 2019 Ousmane Sonko mi ngi koy wax ba sunu joonu yàllaay tey mi ngi koy wax Dakar Arena bi laataa muy tàmbali campagne wax na ko Dakar Arena en ah, matière de politique doo ne diw bul ñëw ci man doo ko wax mais nag ni nga koy séexloo séexlu bi nga koy séexlu mën na nekk ci beneen beneen manière maanaam mu ñëw ci yow moom jox la baatam bu indee ñetti nit sax jox la baatu ñetti nit yooyu waaye amul gëdd ci sa kanam nga jàppee ko morso febeerukaay parce que moom la jàppee boppam morso febeerukaay la jàppee boppam xam dañ koy manipuler di ko utiliser la jàppee boppam nga jàppee ko noonu ba ko di ko seetaan xool sa ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo ne ci dëgg na ci fula seen loxo set wecc te defuñu dara lu leen askan wi di xeebee nga fal leen ci instance de décision yi ñoom nga bàyyi leen ñuy dem ak a ñëw politiquement ba keroog ñuy xaddi di dem loolu lépp mën naa nekk loolu ay stratégie politique la mais nag ci kaw loolu man ñi may wax ñu am fulla am fayda ci transhumance yi wala ci transhumance yi ñi may wax ñu am fulla am fayda mooy la base base u Pastef base bi maanaam yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci gox goxaati samp nekk base bu dëgër bu Pastef yéen a yor liggéey bi boobu ba tey yéen ñooñu nag yéen ay am fulla am fayda su ma leen ko sañee wax ngeen baal ma parce que képp ku ñëw rallier képp ku ñëw ne allié la daa ñëw jàppale si leen képp ku ñëw rek ne dafa transhumé dikk nay leen ko jàllal ci ginnaaw dama ran dama leen ki gën a ñàkk solo ci seen base boobu ki nga xam ne moo gën a ñàkk solo ci liggéey bi ngeen di liggéey ngeen ne ko toppal ci kooku nga raam ñëw base bi maanaam base bi laay wax képp ku ñëw ne ah man kat damaa allié si ak Pastef wala damaa transhumé si na dem ci base ba maanaam gox ba mu jàpp ne fa la dëkk amu fa ñetti nit sax waaye terewul na dem topp tey ci base ba topp ci ginnaaw ña nekk ci base bi am na ñoo xam ne nag dañuy ñëw ci base bi waa base bi ne leen ca bëgguñu leen soxlawuñ leen bëgguñu ngeen taxawaal ci suñu wet parce que da ngeen ñuy gàkkal bari na ci parce que man mënuma concevoir leader politique boo xam ne dafa nekkoon ci gox parti Pastef nekkoon ci gox ñoom ñaar ñu bokk boobu gox ci jamono ji Macky Sall di rey nit ñi di torturer nit ñi di tëj nit ñi kaso yow nga ne leader politique nga ci gox gox boobu nga féete APR nga daan boole waa Pastef yi nga daan ñàkkante ak waa Pastef yi ci terrain bi nga daan waxante ak waa Pastef lu ñaaw nga leen daan yekk musiba nga daan tax ñu leen di tëj kaso tey yow nga ne yow dangaa ñëw fekk si Pastef te yow nga fiy fekk base boobu nga xam ne démb ak bërki démb jiboowoo leen mënul nekk ma def ma def ma jox leen exemple rek tey Mame Diarra Fam man ci élection présidentielle yi dem naa digganteem ak waa ginnaaw raay noor neexul Pastef ginnaaw raay noor man dem naa fa ñu jote ci élection présidentielle yii man dem naa fa te je témoin laa ci loolu waa ginnaaw raay noor ma xam base boobu ni mu dëgëree ci Pastef ma xam leen ni ñu nekkee jàmbaar ma xam ci ñoo xam ne danoo tëdd euh, prison ma xam ci ku ñu faat ba kanam ay doomu aadama yu ñu fa faat ginnaaw raay googu tey bu am mam jaara faam ñëwee doon allié bu Pastef est-ce que bu ñëwee day topp ci ginnaaw base wala da leen di jiitu day topp ci ginnaaw base bi loolu par force la est-ce que base boobu ñoom bu ñu amul xolu ibbil ko est-ce que war naa dugg warta dugg wala bu duggee na yem fi mu yem soit danga naan diw sama xarit la mais doone ci parti bi laa bokk doo too ko wax parce que am na loo xam ne xel mënu ko nangu te il faut nag bu ñuy waxtaan ñuy wax dëgg il faut ñuy wax dëgg donc sa bañu démb suñu nangoo tey seen pexe jubut ñii nga gis nii ñàpp ñuy daw di ñëw élection présidentielle yi laataa Diomaye Faye ak euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko di génn ci kaso bi ñoom ñoo ñu woon bëgg ñëwoon Ousmane Sonko euh, le président Diomaye génn ci kaso bi lañ leen waxante dëgg ba ñu génnee am na ci ñoom ñoo xam ne nii dañ doon xultu ci lañ jaaree weddi Macky Sall ba faw parce que dañoo bëggoon euh, ku dóor doom làq doom ñoom ñuy doxal ñee nekk ci kaso bi loolu lañ bëggoon bu fekkente ne ñoom base boobu amuñu benn maanaam joxuñu benn légitimité ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy ñëw di transhumer est-ce que ñu tey danoo war a am ndëgër laay ci biir Pastef warul nekk warul nekk parce que bu ñu ñëwee ci ginnaaw base boobu la ñu war a topp te su fekkee une fois que base boobu nanguwuñu leen ñu ñëw rallier ci ñoom yaakaar naa seenu dugg si mënta nekk lii may wax nag day concerner après les élections législatives parce que wax naa leen ko léegi trois choses laa leen wax damaa poser question ci ñii di rallier ci Pastef di transhumer ci Pastef nekkoon ay nitu Macky Sall démb est-ce que du Macky Sall moo nekkaat ci ci ginnaaw di manipuler est-ce que du Macky Sall moo nekkaat ci ginnaaw di di teg ay pion est-ce que du Macky moo bëgg a infiltrer Pastef est-ce que du Macky moo bëgg a continuer gas euh, gor yeelu Ousmane Sonko ak waa Pastef est-ce que Macky Sall bëggul gàkkal deru Pastef ak Ousmane Sonko ne leen ah man maa ngi nii dañ ma doon wax transhumant yi laay laay dalal tey ñoom ñoo leen dalal est-ce que joué wuñu seen rôle pour mën a décourager ñenn ñi ci élection législative yi ñu jëm est-ce que joué wuñu seen rôle. pour mën a wàññi électorat bi jëmoon ci Pastef pour mën a lépp mën naa ne parce que nañ leen ko toog waxtaane ko pour ku ne xam bala ñoo dem ci élection yi parce que bu leeree ci bopp yi rek te ñun suñu xel kenn moomu ko kenn téewu ko bu leeree ci xel yi rek leer ci bopp yi rek après dañuy avancé mais aussi Ousmane Sonko mi nga xam ne tey ji c'est un homme politique tey mu téye Sénégal nii comme benn ngëb est-ce que kooku mi doon wax en deux mille dix neuf ne moom bañul kenn ku fàqee ca langue ga ñëw ci moom ne ko damaa bëgg ñu ànd liggéey senegal bañu ko du dàq kenn mais nag képp ku sa loxo setul moom ci liggéey Sénégal képp koo xam ne yoroo jikko bu baax doo ànd ak moom ci liggéey Sénégal képp koo xam ne Sénégal taxulaa jóg say intérêt personnel moo la tax a jóg du ànd ak yow ngir liggéey senegal ñàkk ànd bi mooy dina la ubbil nga dugg waaye du la jox poste du la dénk benn responsabilité du la ne defal ma nàngam du la ne defal ma sàngam lu dul teel a noonu rek teg la foofu nga koy xool mu lay xool te loolu lu mën a nekk la lu mën a nekk la surtout daw làqu yii ñii nga xam ne ay daw làqu laa leen tuddee ñii li soog a ñëw nii ñoom ñii ñëpp seen intérêt personnel moo leen tax a jóg reddition des comptes mi ngi mi ngi yëngu après bari na ci ñoom ñoo xam ne dañuy jaabante ji nekk am na ci ñoo xam ne ñu ngi jaabante fi mu ne nii euh, ci yoon ngir leeral seen diggante ak ni ñu yoree woon alalu askan wi bu fekkee ne ay daw làqu lañ ndax loolu nag ñiy wuti ñi nga xam ne ay daw làqu lañ ñuy wuti immunité parlementaire gis nañ fi ñoo xam ne dañu leen a jiiñ sàcc yàggul dara te tey jii samp nañ seen dënd doon nañ ay candidat ci élection législative yi kon su nit ñàkkee jom nag benn peeru ñàkk jom bu toll noonu man dama lay bàyyeeg sa ñàkk jom toog di la seetaan soo sonnee di nga dem du ma la dàq may mun a busa bind na ko démb muy lu am solo lu reetaan waaye lu am solo nee na gan gu dugg si ci biir kër gi indaale xetu poqotaan est-ce que xetu poqotaanu gan googu day tax nga ne ko us du tax nga ne ko us génnal de ndax teraanga moom teraanga la waaye nag am nga droit def sa parfum bu neex foo toll am nga droit sax ne ko am parfum ngi nii parfumé wul te muy dëgg surtout nag gan gu yeewi bëy day neex a téye ci ndab li gan guy yeewi bëy booy ñëw fekk ko ci gétt gi naan ko yow a sàcc bi gan yooyu tey leen ci moo tax jaruñoo gaaw a dàq gan yooyu jaruñoo gaaw a dàq donc da ngeen naan tekk déglu leen ak Ousmane Sonko mi nga xam ne tey moom moo ci ne patt noppi ci ñoom en attendant te wax na leen li mu leen di wax arena ak léegi yàggut matul un mois segam ñoom ñoom ñoo déggul ba mën a rallier si Pastef dégguñu li Ousmane ko wax kon nañ leen bàyyi ñu ñu ñëw mais nag base bi yéen ñi nga xam ne yéen ay Pastef bi nekk ci base bi ñu gis gëdd bi leen Ousmane Sonko jox ñu gis fi mu leen teg ndax seen liste euh, seen liste national bu Pastef bii wala liste bu Pastef bii ci législative yi wane na ko ne Ousmane Sonko dafa fonk base bi nomination yu ci bari bari wane na ne dafa fonk base bi kon tey yéen base boobu yéen nag yeen a tey ji yor seen cëgal guy ku ñëw na jàll ci seen ginnaaw bu mu def bu mu dindi bu leen ko laaj xalaat bu leen ko dugal na jàll ci seen ginnaaw parce que ñoom base yooyu noonu tey bu leen fa fekkee ñoom amuñu fa ñaari nit parce que man ñi ma xam ñu yor